L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين النبي واصل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شغل سوس نيوكي نيو ديكو فاي يكو نعنا ليالا نمو نبقى يانا يالا بقى كنونو واي ديكو نعنا ليالا يالا ما يكو دوم كم نمو كوي لو يوم بو يالا لا يالا نكو كو يالا دفال لاج بمو لاج مموي ني أستاذ من دمانيك اكسما بروم كر واي لو بري بني أم sama kër dafay nàmpu sama ween léegi nag may laaj loolu ndax dafa xaraam wala déet ndax dégg naa nàmpal keneen ku sa doom dafa xaraam ñu koy tontu di ko wax ni ala kulli xaal euh, sëy secret yi ci nekk dafa bari mbirum néeg la su ma bëggee tontu ci gàttal nga xam ni dama lay tënkal benn règle bu gàtt di ko tënkal ñépp ak ku bëgg laaj sa gannaaw ci question yu demee nii mooy ñu yëg ni jigéen toolu borom këram la borom bi ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna jigéen ñi seeni yére lañ yéen yére jigéen ñi ngeen wax na ba tey nisaaukum xarsun lakum faatu xarsakum anna shiitum jigéen ñi seeni tool lañ sa tool nag heure boo bëggee dem mën ngaa dem règle bi may wax ci gàttal daal sëy diggante góor ak jigéen lépp a ba mu des yi ñu ñëw ne dafa xaraam te ay texte xaraamal te loolu ñetti mbir dong la moo xaram ci biir sëy ñetti mbir bi ci jiitu mooy sëy ak soxna ci gannaaw yi gannaawam maanaam fi gannaawam di génne sobe foofu sëy fa ak moom dafa araam islaam da ko tere ndax dafa nekk bokk ci xeetu nguur jigéen amaa nag sëyeg soxna si ci gannaawam jaar ci sëyukaay ba loolu dagan na dara nekku ci maanaam góor gi mën naa féete soxnaam ginnaaw sëy ak moom ca sëyukaayam loolu xaraamul bi xaraam daal mooy sëy ak moom ca gannaaw yi gannaawam ñaareel bi nga xamante ni islam da ko tere mooy sëy ak jigéen ci jamono bi muy indisposé ndax borom bi nee na faatazilu nisaa fil mahid na ngeen sori jigéen ñi bu fekkee dañuy am ngànt sori googu nag mooy na ngeen leen sori ci sëy mais ci foo ak leneen loolu mën naa nekk loolu amul benn problème nag moom mooy sëy ci jamonoy itikaaf loolu dañu koy tere amma lu dul loolu rekk ci biir sëy lépp dagan na islaam terewu ko xanaa kay day dellu rek ci xool lu teggine ak lu tegginewul li xel nangu ak li xel nanguwul waaye li ci des lépp ci gàttal soxna fi islaam terewu ko dagan na dagan na góor nàmp weenu soxnaam naan sax meew mi bàyyi ko ci moom loolu dagan na dara nekku ci jigéen ji tamit dagan na ci moom mu jël loxoom teg ko ci awray borom këram ak lépp luy indi plaisir seen diggante rek bu dul yii ñu la wax ni xaraam na dagaan na incha allah yal na yàlla jàmmal ñu jàmmal leen yàlla may ñu ñu dégg diine incha allah yàlla defal ñu am amaa yenn borom xam-xam yi nga xamante ne nag ñoom dañuy ñëw ci yenn yi di wax ni yooyu dañu ko sib loolu sibuk seen bopp la mais nekkul sibuk sariya sibuk seen bopp mooy li ñuy bañ ubbi bunt boo xamante ni ëllëg mën naa tax nit ñi dem ba dootuñu xool ak nite di dugg ci ñàkk nite loolu dong lay delluwaat waaye texte buy ñëw moom di xaraamal leneen lu dul lii ñu la wax moom loolu moom wax dëgg yàlla amul yàlla yàlla jàmmalu jàmmaleen salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu